tey suñu ndaje bi ñuy def tey dafa doon ci ndaje boo xam ne dañ koy tuddee action citoyenne mooy nga xam ne doomi réew mi nga war ngaa jàpp ci liggéey réew mi nga indi ci sa contribution mais ci liñ koy defee mooy ci li nga xam ne mooy médium bi ñu nekk muy aar di ci liggéey mu doon suñu wàll ci wàllu réew mi moo tax ma commencé d'abord bala may dem fen ñu jaajëfal euh, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Euh, Cheikh Oumar Anne ndax par projet bi moo ko parrainé ndax bi ñu ko xalaatee wax ko dañoo ànd dem seeti ko collectif bi ñu ko seeti jee mu rafetlu tool loolu taxawaay bi ne lii de moom dinaa ko accompagner dinaa ci jàpp te da ngeen compter ci man parce que sax am na yeneen projet yoo xam ne dinañ àndal loolu doxandoo ko ñoo ngi nag jaajëfal aussi le recteur de l'université Amadou Ali bay ndax démb moom ci boppam wax na ma ci gémmuñu boppam ne benn œuvre bi dina ko jënd léegi ndax dafa bëgg joxe signalu ne moom moo jënd premier œuvre bi encourage yi ñu si des aussi pour ñu jënd œuvre yi moom moo ko wax démb ci suba dafa am nag réunion moo tax mënu ñëw léegi man nag damay membre ci conseil d'administration bu IFAN nekk aussi ambassadeur de la fondation UCAD Cheikh Anta Diop ci ñaari tànk yooyu laa taxawee fii ci université bi bi ñu waxtaan fii ci suñu conseil bu mujj ba ma gisee euh, budget bi ñu alloué euh, euh, administ IFAN gis naa ne dafa xaw a néew gaa moom nee naa Sénégal yaramu mag la fépp ay metti ndax fu ci nekk dafa am fu ñu fay dugal tuuti rek pour mun a dox kon ñun ñoo war a jóg en tant que doomi réew mi suqat xalaat yu bees yoo xam ne suñ ko indee dina dolli koom-koom ci réew bi looloo tax tey ñu indi ndaje bi man nekk aussi ambassadeur fondation ICAD am beneen taxawaay boo xam ne aussi tey su dee dañ ma ko nommé am na liggéey boo xam ne war nañ ko fa def tey su dee dañu war a tax hôpital wala nangam wala teer dafa am ay moyens yu mu laaj yooyu yëpp dañ ko ci war a accompagner. moo tax tey li may njëkk a def aussi mooy jaajëfal ki ñu wax Mamadou Bayla Ndiaye moom mooy directeur IFAN mi ngi ñu toog ci xalaatam ci ndax ba ci bi ko xalaatee ci commencement ba léegi. amul ñenn semaine yoo xam ne presque toog nañ ko di ko réunion di waxtaan ci nu ñu koy defee mu rafetlu aussi taxawaay boobu ne lii de la doon xaar ci ñi nga xam ne ñooy doomi réew bi ñu ñëw jàpp ci liggéey IFAN pour accompagner ko tey mu indi lii te ñun ñëpp dañ ko doon waxtaanee. di jaajëfal aussi El le docteur El mbay Mbaye mi ngi di toog mooy administrateur de la fondation ICAD bi nga xam ne moom it bu ma koy waxtaanee ci moom jox ko projet bi daf koy jël ñu daje fii ci bureau directeur Bayla di ci waxtaanee di ko di ko togg ba yàlla def tey lii am di jaajëfal euh, le professeur Malick Ndiaye mooy directeur musée Théodore Bono démb maa ngi koy wax ne dafa doon koo xam ne militant de la culture la soo gisee ma di ko wax parce que dafa ñëw nekk xale ñëw indi fi liggéey bu mucc ayib macha allah ndax tey musée Théodore Bono bi mu yor bokk naa ci artistes yi xam ne depuis année quatre-vingt-dix def naa fa annuellement exposition mais jamono am na musée ba kenn xamul nan la doon nuróol mu ñëw jëlaat ko suqaliwaat ko allah. ba tey soo demee exposition yi dafay teglantoo te da koy jox artiste gracieusement ñu ne ñëw leen ñu liggéey ensemble kon loolu ku ko ku jar a jaajëfal may ñu remercier aussi ki nga xam ne mooy euh, Amady Bokoum moom mooy yor euh, le musée de civilisations noires dafa ñëw jàpp ci liggéey bi ñu defee loog moom rey ñëw waxtaan ak moom ànd ak moom dem seeti ministre bi mu rafetlu ko lool daan na dina leen accompagner dinaa leen jàppale di jaajëfal aussi présence su CSA mi toog tey moom ci boppam keroog réunion bi ñu mujjee def suqaliwaat nañ suqali boo xam ne sax daf ñu daanaka làbbaliwaat ndaxte ay xalaatam ak ay vision dafa leer ba nga xam ne tey dafa gën a tax ñu jaajuwaat laxasaayuwaat pour mën a taxawal tey rencontre bi ñuy def nii. di remercier nag képp koo xam ne jàpp na ci Ndeye Ada mi ngi nii ci moom moo yor chargé de communication boobu ba léegi ba ci biir màggal gi mi ngi liggéey pour mën a tey ñu am résultat bi ñu am ni kon loolu lu jar a jaajëfal ndax nit su liggéey da ko naan jaajëf. di remercier Samba Kanté bi nga xam ne mooy sama mooy sama chef d'atelier ak tableau yi nga gis ñi yëpp ñu encadré moom moo ko encadré ci lu gaaw rapidement taxawal ko def li ci war a def ñëw taxaw ànd ak ñu ci liggéey nag li ñu wax mooy xalaat bi dañ ko bëggoon a partager ak yéen mooy une œuvre pour la recherche mu doon xalaat vision boo xam ne dañu wax nan la ñu tëggaatee suñu doxalin pour mun a am suñu cër ci àdduna bi. mooy ñu xool nan la ñu xalaataatee ba nga xam ne ñun financement yi ñu soxla dinañ ko mën a defal suñu bopp ndax mënatuñu toujours di xaar bitim réew di ñu financer tout le temps ñu naan financement bugguma sax tudd ay tur waaye xam ngeen ko fii la jógee financement tel ba pare teg la seeni conditions kon ñun foog ñu jël loo xam ne ñoo ko xalaatal suñu bopp amal ko suñu bopp ci koom parce que nit ñi am na possibilité yi moo indi tey rencontre bi ñuy def ñu tuddee ko pour la recherche mu doon tableau boo xam ne dafa am original bi mi ngi kër ga mais ñu def ci maanaam ñu sopp so sotti ko ci ay édition limitée moom la ñuy wax lithographie tey soo demee États-Unis fi ma gën a miin ci wàllu liggéey lu ci bëri nit ñi lithographie la ñuy jënd am na ci tey artistes yu mag yoo xam ne seen lithographie mën na ko jënd à moins de cinquante millions parce que seen tour moo yegg foofu waaye nag tey œuvre yi originale yi parce que buñ ko doon jënd ay millions lay jar waaye tey dañoo indi lithographie yoo xam ne bu ñu ko defee def nañ ko nii signé ko mu nekkaat original parce que dafa am édition limitée ñu jaay ko benn bu nekk cinq cent mille francs tey suñu eggee ci suñu objectif mooy ñu am cinq cent millions yoo xam ne suñ ko jaayee dañ koy dugal fii ci Gafaka ci Gafaka institution IFAN ak fondation UCAD ba nga xam ne li nga xam ne yëpp ci wàllu recherche soxla nañ ko ci mun nañ ko ci def ndax tey damay def tuuti digression parce que defuma ko ci français xam nañu li fi gis nga directeur bi wax léegi ci ci sport bi expliquer na difficulté yi yi am ak lan mooy li nga xam ne war nañ ko mën a jàppale ci xaalis boobu bu ñëwee lan lañ ci mën a def ak aussi besoins yi nan la toll besoins yi sax ëpp na li ñu wut ni waaye suñ ci sottee sunu sunu wàll xëy na dinañ am li ñu dinañ ko dinañu indi sunu contribution ci liggéey bi IFA nag dafa am loo xam ne dafa am ay chercheurs yu mag ay xalaatkat yu nekk ci àdduna bi yoo xam ne dañoo bokk aussi ci mouvement mondial ci mouvement àdduna bi ndax soo gisee tey ñu xalaat kot yooyu ne fii dafa am condition yoo xam ne dañ ko nag war a liggéeyee suñuy liggéey ndax soo soxlaa yenn matériaux yi foog nga jënd ko tey dafa war a sax nga réadapté wu ak àdduna bi ni muy doxee ne defaat remise à niveau ba nga xam ne même li ngay utiliser parce que li nga xam ne maanaam wàllu xarala la daf ci gaaw obsolète ba nga xam ne tey da ngay jënd sax su ma jëlee exemple caméra rek da ci dawal pendant un an ñu ne bi dépassé nañ ko kon chercheur kon moo gën a soxla wuti yooyu nga xam ne tey daf koy war di ko jënd te xaalis lay jar te comme nag koom-koom bi matul ñu seet loo xam ne mun nañu jàppale ba nga xam ñoom dinañ trouver mun a bokk aussi ci mouvement bi mënuñu comme ni ma ko wax rek toujours di compter ci ñeneen yi kon lu ma ko tuddee mooy mbew béy ci sa wewu tànk dañu war a commencer ñun ci suñu bunt kër di béy nag jëm ci ko jëm ci kaw su ko defee ku ci nekk soo ci dugalee sa loxo li nga li ñu bëgg wut dinañ ko mën a am une œuvre pour la recherche mooy li ma wax xalaat la boo xam ne dañ ko partagé ku ci nekk indi sa sa xam-xam sa xalaat nan lañ koy defee mooy indi tey ñun ñëpp ngeen jàpp ci ñu wër projet bi di xool nañ lañ koy suqalee dafa am aussi aar ñu koy tuddee économie parce que ba léegi aar dañoo jàpp ne ay lu ñuy dis rek teklu mais tey soo demee bitim réew wala bés bu ne ngeen def ko ci presse bi ñu ñu ne tableau Picasso wala tableau Fernand Léger wala Léonard de Vinci wala Giacometti jaaye nañ ko ay ay ay milliards wala ay centaines de millions <coughs> loolu am na fii mais malheureusement ni ñi xamuñu ko bu baax te loolu nag dafa doon ñu wan leen ne aar boobu muy def ñu jaay ko ci xaalis boobu économie la boo xam ne day dugg ci koom-koomu réew mi te kon il faut ñu wane ne aar économie la boo c'est un facteur de développement ci suñu réew la aussi quoi mais ñoom la boo xam ne aussi grande cause yi fi am yëpp humanitaire muy jafe-jafe yi àdduna am woo nañu toujours artistes yi pour ñëw taxaw man tey su ma mun a expliquer sama cas rek def naa fi plus de presque depuis bi ma nekkee ci artiste ba léegi une cinquantaine de ventes aux enchères yoo xam ne yenn yi dañ koy dugal ci ay hôpitaux bu ci mujjee mooy hôpitalu Pikine euh, ñëpp xam nañ Dominique dugal nañ fa alal joo xam ne ci vente aux la jóge am na ci yoo xam ne <coughs> fondation yi dañ may sollicité ci loolu institution yi nga xam ne banque yi lañu wala association yi dañu ñëw ba bii mujjee passé mooy association des juristes sénégalais bi ñu ñëwee dañoo jël ay table def ko vente aux pour mun a jàppale seen wàllu liggéey kon loolu dafa doon loo xam ne lu lu fi lu fi yàgg la ci pratique loo xam ne ci wàllu aar dafay mun a jàppale li nga xam ne mooy liggéeyu liggéey yu mel noonu suñu chercheurs yi na comme ni ma koy wax dafa laaj ñu jàppale leen ndax ñoom dañoo liggéey ci condition yu xaw a jafe tey su fekkee ne tey li nga yor matul nga bugg a trouver dafay jafe kon ñun ñoo mën a jàppale suqali leen accompagner leen ba nga xam ne tey li nga xam ne ñu ngi koy jëf ci gëstu dinañ ko mën a trouver ndax euh, sooy dem guerre doo bàyyi ba guerre ba ngay door a dem di defar sa arme avant guerre bi ngay préparer wu xam ne yaa ngi am sa stratégie xam noo cay demee te loolu nag mooy recherche yi ñu ngay def ba nga xam ne tey dañu trouver ci laboratoire biologie ñu ne kat euh, espèces yi dañoo war ne noppaliku jël yi pour mu suqalikuwaat foog ñu am temps ñu noppaliku boo xam ne di leen permettre ñu dellu soit ba nga xam ne soo ñëwee fekk fa koom-koom bu doy tey mi ngi koy wax maa ngi koy waxtaan ak euh, chargé de communication bi <clears throat> ñaari weer ci ginnaaw ci espace floral sénégalais yi botanistes yi trouvé nañu ay espèces yoo xam ne xamuñu ko woon ci suñu suñu suñu environnement mais loolu lu am solo la ndax tey loolu su dee tey dañ ko jàppee ne artémisia ñu ne pour euh, que mu tëti euh, dëkk bi artémisia ñi ko malgache euh, yi gis nañu ne jox nañ ko contribution ci wàllu faj tey garab googu ñu xam ne trouvé nañ ko ci environnement bi ñu ne tey mun na faj nangam feebar mais loolu tawféex la waaye pour yegg fa nag chercheur bi dafa am ay outils ak ay moyens ak koom-koom boo xam ne moo koy mën a permettre mu am dalu xel pour mën a trouver loolu donc moom laay bëgg wax ne art nag dafa doon loo xam ne fu mu sa nekk révélateur de vie parce que bi nouvelle conscience esthétique soo déggee man nouvelle conscience esthétique dañu war a génn ci def naa tableau bi technique bi laa utiliser loolu baax na loolu am na solo ndax jàng ci loolu lay commencer waaye dafa am foo yegg foo xam ne da ngay naan sama tableau bi il faut mu jëriñ askan bi mais waxutuma ay waxi technique baax na trop waxutuma ay waxi forme baax na trop waxi couleur baax na trop mais tey su ngeen gisee Picasso am tableau Guernica boo xam ne Guernica kenn xamul dëkk boobu ba guerre ba amee daf leen ne mënumaa dem guerre waaye mun naa defar tableau boo xam ne dinaa ci wax ba nit ñi dégg ma tey Guernica boobu moom la ñu exposé fële ca UNESCO mu doon succès mondial boo xam ne kenn xamul ko def nañ ci ay copie def nañ ci ay nangamitel tey mi ngi jëriñ askan wi maanaam art pour art amatul l'art pour l'art n'existe plus dama ne l'art c'est pour le progrès et l'avancement su fekkee ne amu ko jëriñu ko parce que finalement sax dañ naan lan mooy njëriñu art te société bi foo nga wan leen ne art bi ñuy def am na njëriñ pour société bi te am na noo koy defee donc moom laay wax ne Lavoisier toujours boobu naa ko wax cité aussi que moo doon wax ne rien ne se perd rien ne tout se transforme loolu moom yéen ñëpp jàng ngeen ko xam ngeen li may wax naa nag mooy li may wax nii mooy nga toog xam ne sa wàllu liggéey mën nga ñëw jàppale ci côté boo xam ne soo suqalee yëf yi dina dem ndax train la boo xam ne suñu poussé ñun ñëpp dinañ egg ci liggéey boo xam ne ku ci nekk moom laay wax la co-construction de parallèles ku ci nekk dafa am métier boo jàng nga jël ko ingénieur bi scientifique bi artiste yi journaliste bi lëkkale seen doole ku nekk indi sa contribution mooy tax suñu poussé rek affaire bi dem pour que suñu dundin ci àdduna bi mën a neex mën a rafet ñu mën a aussi compter dans le monde donc li may wax na mooy toujours œuvre d'art dafa am ci nécessité bu tax ñu koy créer finalité bi nag mooy mu mën a jëriñ askan bi moom laa expliqué woon ci un peu citation yi ma def quoi. léegi nag ci laa wax ni ci vingt et unième siècle bi ñu toll dañoo toll ci moment bi nga xam ne foog ñu wane ne lépp lu ñuy def mun nañ ko defandoo ensemble parce que jamono bi léegi lépp dafa am interconnexion lépp lépp lépp àndandoo kon donc foog ñu jàppale suñu savant yi. sunu biologistes yi suñu botanistes yi suñu bactériologistes yi suñu conservateurs pour fàttali aussi ne foofu soo déggee IFAN du rek exactement ay chercheurs yu cherché nii mais dafa am institution yoo xam ne dañ ko wër muy 17 laboratoire tey ku xamul carbone 14 ku ko déggul ci àdduna nit bu jógee bitim réew ñëw fekk carbone 14 laboratoire bi sonn bâtiment yi kii dana ne ñii fan la ñu nekk kon ñun doomi réew ñoo war a jóg defaraat loolu parce que loolu dafay loo xam ne lu am solo ku xamul Cheikh Moussa Camara ay bindam mi ngi fi ñu ngi koy célébrer pourtant bi ñu wax ne retour des œuvres na œuvre yi dellu si dañ ko jël Occident dañ ko spolier waaye nag day fekk ñun ñu mun ko conserver ñu am conscience ñun aussi en tant que citoyen xam ne œuvre yi ñu dellu si am na ci condition ñu ko mën a parce que dafa am yu mu laaj ay température de directeur wax na ko léegi soo de fekkee ne feuille boo xam ne soo ko yëkkatee mu tas sa loxo doo ko ñemee laal sax su boobaa ask askan nga nga sànq kon këyit boo kenn mënu ko laal tant que conservateur defuñu ci liñ ci war a def mais aussi ay musée la soo demee ay sculpture ay œuvre d'art yoo xam ne mi ngi ci musée yooyu te conservateurs yi yooyu ñoo koy toppatoo di ko am na lu mu laaj pour ñu toppatoo léegi nag ci laa wax ne maa ngi laaj di woo askan bi yëpp ñu ñëw jàpp ci liggéey bi jàpp ci mooy directeur d'entreprise yi société yi muy nit koo xam da nga soxla benn tableau nga bi nit koo xam da nga ne mën naa jënd cinquante tableau mun naa jënd vingt tableau parce que bureau yi yaatu nañu soxla nañuy wér ci ay tableau kon ku ko jënd tey loo xoo ko yóbbu tu l'as fait pour la bonne cause. te ak. Hmm? ak anciens étudiants yi xaw ma xam naa nekkuñu fi mais ñu wax leen ne ñoom ñëpp ku ci ñëw d'ailleurs am na sax euh, madame la chercheure. <laughs> madame Sall. Adji Adji donc jël na benn tableau ñu wax ko ci kaw gars yi dégg <laughs> benn boo ko jël nañ ko tàcc de la communauté. benn bi recteur moo ko jël après dinañ ko yóbbu bureau moom recteur mu ñu ñu firndeel ko. kon donc maa ngi jëfal vraiment seen taxawaay yi di wax ne mbooloo mooy doole te vraiment li ñu doon xaar sant nañ leen gërëm leen ci taxawaay yi jël ngeen jëf.